lu rëy léegi nag man xam nga comme président Macky Wade laay président Macky Sall laay liggéeyal lu ñu ma jox rek dama koy tegaat ci loxoom def nañ ma homme de l'année fii au niveau de Tivaouane au niveau du département Tivaouane jëlaat naa ko ma tegaat ko ci loxo président Macky Sall parce que bu ñu fi dee liggéey dañuy liggéey ci vision président Macky Sall parce que président Macky Sall moo wër bi mu bëggee réew mi moo wër nit ñi bi mu wëree ki gox yëpp def plus de 4000 kilomètres de plus de 400 villages ñuy wax ko seen coono mu jël seen coono boobu tënk ko def programme wan leen ni coono bi nga nekk naa ko lijjanti ci loolu programme boobu mu def moom def ñu koy appliqué moom la appliqué Tivaouane ba Tivaouane kontaan xam ni ki mu fi teg. muy coordonnateur départemental ñu def ko lom de l'année c'est-à-dire defuñu ma man en tant que tel ñëpp ñu nekk APR di représenter président la république fii ñoom la ñuy def homme de l'année loolu mooy wane ni que population bi d'accord nañ ci programme yi nga xam ni moom la fi tënkagul moom la fi defagul di ko wax jaajëf comme suñu sëriñ ni mu ko waxee jaajëf. jëf itam doo waa li des ci wàllu liggéey bi mooy assainissement te lancé nañu projet assainissement bi balaa fin ne dinañ ko def complètement mu jeex. liggéey ndaw yi emploi des jeunes. xam ngeen ni ministre de la jeunesse jaar na fi bi mu fi jaaree def na togg nañu ay programmes yu bari pour jeunes yi jeunes yooyu ñoom ñëpp dinañ créer. ay entreprise di ñuy wax PME PME yooyu ñoom dinañ ci liggéey te dinañ ci PME bi nag dina ci créer deux ou trois emplois ça fera beaucoup d'emplois créés parce que loolu rek la parce que dañu choisir ay activités des activités génératrices de revenus activité génératrice de revenu yooyu nag mooy tax liggéey bi ñu am ko dans la durée parce que président Macky Sall bu bëgg créer daf koy créer dans la durée bëgg nga am benn affaire boo xam ne da koy def fay moo tax projet yëpp ñuy def ko analyse def étude de faisabilité bi ba nga xam ni que boo ko l'investissement là dina doon dina créer croissance et emploi parce que c'est l'investissement d'aujourd'hui qui crée la croissance euh, de deme et l'emploi de demain loolu la merci jërëjëf ndax euh, dafa am euh, loo xam ne nii dafa nekkoon gént waaye ñu wax ni gént suñ ko boolee ak tuuti pas-pas mën na bokk ci liy soppi àdduna ñu gisoon nii dañu nekk ci communication te communication bi suñ ci amee taxawaay mën na bokk ci liy indi développement ci Tivaouane non pas que moom moo koy indi mais dina bokk ci lii indi développement ci biir Tivaouane ñu ànd ci ak ay mag ak ay ndaw am benn groupe ci Facebook di waxtaanee ci nan la ñuy defaree Tivaouane di ci waxtaan di ci waxtaan ba jamono ñëw ñu ne nag war nañoo génn ci bind bi taxawal ko jëmmal ko ba moo dee waxatee MTK nga ni MTK ngi nee. ñu ne nag loola suñ koy def dañ koy ànd ak yokkute boobu bañ a nekk yokkute MTK mu bañ a nekk yokkute kenn ci waa MTK mais mu nekk yokkute Tivaouane dans sa globalité en quoi ñu xool li nga xam ne nii moom mooy rafet ci dëkk bi ñu di ko wax ñu xool ñi nga xam ne nii bokk nañu ci ñiy def njàmbaar ñu indi leen am nuñ ko tuddee waaye xool li nga xam ne nii am na ci aussi ay jafe-jafe ñu waree ko ba nit ñi mën koo corriger loolu moo taxoon tey ñu amal bis bii mu nekk loo xam ne dafay conclure euh, li nga xam ne moom mooy at bi ñu tànn ci ay nominé nominé yoo xam ne nii aussi ni ma ko waxee woon ci tubaab am na distinction d'honneur yi nga xam ne nii kuy wax Tivaouane moom ngay jàppale soldaaru Tivaouane ñenn di ko wax kenu mbaar muy sëñ Abdoul Aziz Al Amin am na fi aussi distinction honorifique distinction honorifique bi aussi ñu ngi ko jox kenn ci ki nga xam ni nekkoon nañu dénkoon ko dëkk bi mu nekkoon euh, fii euh, député di aline Palla Mbaye te ay xale yu ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo mujjee juddu xamuñu ko ñu war ko waxtaane tey su fekkoon ne ni euh, mébét bi sotti na taw bi xaw na am lu mu yàq mais lu ci nekk dañ ko doon def projection ngeen gis ko ñi nga xam ne xamuñu jëmm yi ñu gis jëmm yi wala ñu wane lenn ci li nga xam ne noonu la ñu def noonu lañ ko namee woon mais ñu ni juróomi secteur yi nga xam ne moom lañu tànn muy secteur public bi te foofu ca la ñu tànn ki nga xam ne nii moom mooy l'homme de l'année euh, ki nga xam ne ni mooy euh, Abdou Ndéné Sall le secrétaire d'État au réseau ferroviaire ci wàllu ci wàllu euh, ci wàllu éducation ak communication tànn nañu kenn koo xam ne moom it def na mi ngi def fierté Tivaouane ndax gis nañ ni ci li nga xam ne moom mooy ci antenne bi ak ci tele bi mi ngi ciy def ay jàngale yu am solo ba ay nit di koy di ci di ci jàngatee parce que loolu suñ koy wax ëmb na boppam waaye ëmb na ku mel ni Lamine Dieng ëmb na ñeneen ñi nga xam ne dañuy liggéey liggéey bu mel noonu te askan bi di ci defaroo ci wàllu li nga xam ne moom mooy euh, jeunesse wax naa ni jël nañ ci ki nga xam ne mooy la case des jeune femmes yi nga xam ne nii seen njàng dafa bënnul ñu new dem wuti ko feneen di am ay formation yoo ko xam ne ñi ngi koy def nekk ci transformation bi ñu bëgg leen ci jaajëfal wàllu sport wax nañ ko amoon nañ fi ñeent yoo xam ne ñu ngi woon ci biir dem nañu ba jàppoon sax bi nga xam ne nii mooy benn équipe bu football boo xam ni gis nañu njàmbaar bi muy def waaye dañu ni nañ ko delloowaat ci esprit communautaire boobu nga xam ni am na fi ay xale yoo xam ne nii seen jàppale néew na mais gis nañ ni dem nañ ba final coupe du Sénégal gis nañ ni xale yooyu demaat nañu ren ba demi final gis nañ ni xale yooyu dem nañ ci phase. Euh, régional yi ñoom ñoo ko gañe ñu ne nañ ko jaajëfal non pas ñoom la ñuy jaajëfal mais dañuy jaajëfal yeneen ndaw yi nga xam ni nii fa ñu toog dañoo toog te amuñu jàppale yaakaar ne dañ leen war a jàppale ñu bëgg leen wax ni leen même su ngeen amul jàppale am na lu ngeen mën jóg leen ngeen farlu su ngeen farloo di ngeen am dara loolu moo waral distinction yooyu santé gis nañ ni fël ci hôpital Dabakh dañ daan am ay jafe-jafe di soxla deret di dem Thiès wala dem feneen di ko fa wuti ñu dem ba ci jamono secteur section labo gis nañu ñu am ci seen xarañ ak seen taxawaay ànd ci ak direction hôpital ba am fa couloir boo xam ne dafaa nekkoon rek nekk jaaruwaay ñu defar ko ba mu nekk banque de sang ba ña xam ne dañ daan dem di fa wuti sang ñoom suñ ko amee soxla dañuy ñëw di ko situé ñu ne loolu war nañu wane ko au delà de jaajëfal leen mais nit ñi xam ni gannaaw conférence yi ak yeneen yeeg tànn beer yeeg euh, ouverture fois yi am na don de sang yoo xam ni suñ ko defee xëy na sa yaay wala sa papa wala sa rak wala sa nijaay wala yow mi koy may sax xëy na yow koy may pour nit ñi jël ci importance bi nga xam ni don de sang am na ko je crois que en gros loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu retenir ci ci yi di wax ni ñu ngi jaajëfal ñëpp rafetlu nañu taxawaay yi di wax ne nag MTK du yëfu Ousmane Diagne du yëfu groupe bi du yëfu Pa Gallo MTK mille et quelques membres yi nga xam ne ñi ngi ci biir yëpp MTK seen MTK la parce que li ko tax a jóg mooy promouvoir le développement de Tivaouane donc ngeen comprendre ko noonu xam ni explication yi dañ ci boole woon di leeral te suñ ko toppee dafay gudd waaye ngeen xam ne li ci xol bi ak li ci xel mi moo gën a yaatu li nga xam ne nii moom la ñuy wax waaye ñu dëxañ ko noonu rek pour ngeen xam ne nii seen yëf la MTK seen yëf la waaye fàttali ni président du conseil départemental yónnee nañ fa lettre le maire. aussi yónnee nañ ko parce que li ñuy def ba fàttali ni wax naa ko ni ko yow lañ koy defal ñun tànnuñu ñu yow la ñu tànn secteur yi ñuy nominé secteur ci yi ñu la dénk ca la ñu bokk kon suñu ñëwee di leen teg bët di ca xool fu baax ak fu baaxul yow lañ koy xoolal su ñu amee ñu ñuy jaajëfal yow la ñuy jaajëfal tey mënoon naa ngaa toog soo toogee juróomi distinction yi ñuy def yëpp. buñ ca yëkkati ni la monsieur le maire nga di waaw ñu la jógal nga joxe ko kon jàpp nañ ni yow lañ koy joxal keneen kuñ ci tëddu rek dañ koo yaatal su ñëwul am nañu daf ñu am ngànt président su ñëwul xam nañ dañu am ngànt waaye jàpp nañ ni am na ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk di liggéey te ñëw nañu ñu jàpp rek ni kon ñu ñëwee ñëw teewal nañ leen en tout cas di jaajëfal ñëpp di rafetlu taxawaay bi di leen ñaan ngeen ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammad